ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi tey benn fan ci weeru septembre la ñu wax ni université publique yi euh, ci la yenn ci étudiants yi di delluwaat jàngi euh, waaye fële ci université Gaston Berger bu Saint-Louis nemmeeku gi mooy jàng amul foofu foofule amphithéâtre ya kenn nekku fa mbootaay bi ëmb étudiants yi nekk foofu ca ug ne nag am na ñetti fan yoo xam ne dooree ko tey jile dootuñu jënd ci ticket ci restaurant yi jàngit du am foofule dañuy dem ca Ndar ndaw la ñu Ousseynou ñu ngi lay nuyu. Ndar tay amul benn euh, amphithéâtre boo xam ne ubbi nga xale yi jàng fa boo xoolee tey ci biir amphithéâtre yi amul kenn ku fa ne ndax étudiants yi nga xamante ni ñoo nekk ci coordination des étudiants bu Saint-Louis dañu décrété 72 heures de GST waaye tamit ni dañu def lu jëm ci wàllu njàng mi lépp ñoo koy dakkal moo tax nag tey ci wàllu njàng mi ni ñu ko waroon a tàmbalee loolee amul étudiants nak dañ nañ ci yàbbi ñom ci seen i bopp li ñu xamlé moy kilifa yi li leen bëgg a imposer nag loolu mënul jall motax na ñu jël ndogal bi nu mel. bon situation bien fini nakar lañ naqar ko bu baax a baax la fekk on a resté 5 mois donc nañ mot presque 5 mois defu ñu cours defu ñu dara toog suñu kër yeetu donc am envie retourner waat campus ñu ñëpp def suñu cours. ñibbi ñëw gisuñu professeur gisuñu administration boo xam ne aussi mën na cee def dara si le CROUS aussi est là du ñu imposer ay loo xam ne xam naa ne du mën a jàll donc lañu fexee trouver tey daan taan waxtaan pour essayer. waaw waaw parce que man mi di wax ak yow maa ngi euh, UFR SAT dañoo année blanche woon bokkoon na ci ñi nga xam ne ne euh, année blanche lañ defoon ñu ñëwaat actuellement ñu ñu ngi doon xalaat euh, année bi normal ñu ñëw avec cette pandémie là gis nañu li fi xew te jii ni buñ bëggaate rek loolu amaat rek day xaw a métti si ñun daal dañoo war a sóoraale bu baax a baax parce que ñëwuñu fii pour toog fii dañu fee ñëw pour jàng génn fii dimbali leen dimbali suñuy waajur travail pour le Sénégal aussi. Université Gaston Berger bu ndaa tey jàng amu fi étudiants yi ñi nga xamante ni ñëwoon nañ huit heures bi ñu déggee xibaar bi ñu ci bare dañu delluwaat seen kër ñu delluwaat ci seen ay euh, bërëb bi nga xamante ni fa la ñu dëkk ci université bi. mu mel na kon bras de fer bi nga xamante ni moo dox ci diggante administration bi ngir ñu tàmbaliwaat euh, lu jëm ci wàllu njàng mi ñii ñëw tey ñii ñëw suba moo ko waral étudiants yi nag ñoom fa ñu taxaw la ñu taxaw nee na force waxtaan am ndaxte kilifa yi nag li ñu bëgg ñoom mënuñu ko daal di nangu eh, fii ci diwaanu Ndar Géej